Euh, defe naa du ñu doon gor ndax may mun a euh, lebaluñu loolu mm-hmm. ndax euh, bi mu ubbee këram gi bokk naa ci ñi mu njëkk a woo ne ma Binta Diallo dama bëgg def la directrice adjointe mm-hmm. li tax ñëwuma moom xam na ko mm-hmm. donc mu continuer di am ak moom relation sœur sax moo nekk sama diggante ak may mun a ci lu ma nekk ci lu ma dégg mi ngi may woo kon kooku su nekkee ci torof torof da ngay jóg sol sa dàll ñëw témoigner ko mu xam na yow mi yëg nga ko li ko dal nag mu metti ñu trop on ne s'attendait pas à ça dañoo yaakaaroon ne dañuy yem ci saaga yi mhm. ak ci menaces yi maintenant ils ont commencé à exécuter les menaces parce que ñun ñii ñëpp dañuy jot ay menaces de mort mhm. dañuy jot ay menaces saaga nu mu saaga nu mu gën a ñaawee ñuy jël suñu ay photo di ko rangale ci réseau yi mhm. ñëpp di ci teg seen bët am na photo quatre journalistes yu jigéen man may Maimouna nduur ndey faatu njaay beneen journaliste bu jigéen boo xam ne mi ngi ci réseau yi di circuler chaque mm-hmm. jour ñëpp di ci teg seen bët mm-hmm. kenn waxul état waxul Synpics waxul CORED waxul CAP waxul kenn waxul. on a trop laissé faire on a trop laissé faire on la situation pourrir xamoon nañ dañ egsi si fii mm-hmm. ndax nag nit bu amee fit jël sa numéro téléphone di la woo di la envoyé message. di dugg ci say réseau tellement d'insultes et de menaces. Maïmouna Maïmouna Ndour man euh, xam man xam naa loolu damay wax ak a Ndour Faye ma jàpp ne a nduur deful woon du liggéeyam liggéeyam nag warul woon yegg si ba fii te ki ko def il a prémédité son coup dem xaar mhm. nit jàmbaare ku jigéen wàcc liggéey une femme sans défense war a ñibbi si këram toog ak njabootam nga jël ko traîner ko si tal si loolu rek violence la traîner ko nu mu la neexee. Mhm. dóor ko nu mu la neexee. ko njëkk a dóor ci boppam de pare jam ko trois coups. Mhm. yàlla moo nanguwul mais kooku dafa taxawoon pour rey. may mën a nduur fay. Mhm. lii am nag am na le vin et le le le bissap est tiré il faut le boire dafa jot presse bi ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi. le monstre est là. lii mooy monstre. de désigner un autre na la presse. parce que lii daal si kaw may mën a nduur fay. ci kaw liberté de presse la dal képp ku def sa liggéey ni mu waree ni mu waree. ci kaw liberté de presse yow yow am na ay menaces la passé. Bamba Kassé mii lu nekk ah. jàkkaarloo. waaw kay keneen ak keneen. waaw yow daal boo waxee lu neex kii c'est bon soo waxee lu naqari kële alors c'est tu es tu la mauvaise tu la paria dañ lay menacer. Mhm. pour tëj sa gémmiñ suñu demee nag ba bëgg nag léegi jël presse bi muselé leen ah loolu nag ñun état waru ko seetaan.